asalaamaaleykum mbokk téléspectateur Equivox TV di am mbégte ak bànneex rek di jàkkaarloo ak yéen saa nekk nee naa leen rek lépp loo xam ne rek nekk na information wàcc ci dëkk bi dinañ daal di jàkkaarloo ak yéen faram-fàcceel leen ko fii ma nekk nag mooy cité Bata demb nag mu am jéye boo xam ne am na fi rek xewee nag ci kër gi nga xam ne rek fii lañ taxaw ñaari way dencante yoo xam ne rek dañ leen fekk ci seen apartement ñu faatu li leen faat nag euh, ba tey rek kenn xamagu ko moo tax ñu daal di wàcc fii ci cité Bata ngir rek euh, faram-fàcceel leen ko ñu daal di rek saafwante ak euh, ñi nga xam ne ñoo di dëkkandoo ñu leeral ñu rek lépp loo xam ne xewoon na fi démb. ah maaleykum salaam. fii nga dëkk ci cité Bata. waaw non dëkkuma fi nag c'est que liggéeyee nii quoi. waaw léegi nga jàkkaarlool démb mu am jiyee boo xam ne rek am na fi démb muy ñaari way dencante yi nga xam ne dañ leen fekk ci appartement bi ñu faatu lan nga ñu ci mën a wax. wax dëgg ka si yàlla moom démb moom dañoo ñëw xëy si liggéey si après comme comme li nga xam ne mu li fi li fi am daal doon loo xam ne lu nu lu nu ñaawlu daal ah dañoo xëy ñëw liggéey si après ñun ñu dégg ñu ne daal am nañ euh, benn couple boo xam ne wax dëgg yàlla lu nu lu nu rafetluwul quoi waaw ñoo ñoo ñoo ñoo ñàkk seen bakkan waaw. ñenn ñi naan dañoo lakk. est-ce que am nga tuuti loo xam ne rek mën nga ñu see wax. dëgg yàlla loolu moom amu si dara lu ma si wax parce que man man it comme que dama liggéey fii nii daa tombante nag juste rek bi ñu ñëwee après affaire bi tombé net quoi waaw te yàlla dara leeruñu si wax dëgg yàlla waaw dara am si leer waaw. tur bi naka la. Babacar. fii nga dëkk ci cité bi. waaw suñu ma kër la mu am jiyee boo xam ne rek am. ah Aïcha moom moom moom. ku baax la moom moom saa naan romb fii dañu naan nuyu fi dinañ fekk ñuy liggéey suñu xaritu patron la woon yooyu noonu yooyu daal man naa ko seede si moom ku baax la woon moom saa bu rombee ba si doomam bu ndaw bi sax saa bu wàccee fii lay romb nuyu ñu taxaw dayaan kafa sax suñu apprenti bu ndaw bi yooyu noonu yooyu mën nañ ko ci seede quoi affaire moom bu ko déggee métti ñu torop waaw yooyu moom si début mi fii moom dafa wéet torop yooyu moom yàgg na fi quoi depuis man moom fii yàgg naa fi ma mooy loolu quoi mais affaire bi daal bi nga déggee métti na trop nag moom Aïcha moom ku baax la woon fi dañu naan romb di nuyu insa patron bi yooyu dem yooyu moom xam nañ ko si moom. mu am ñenn ñoo xam ne dañoo xamle ne rek dañoo lakk ci néeg bi ñu nekkoon est-ce que loolu dëgg la. ah yooyu moom loolu moom lu ma la si wax moom damay fen yooyu moom xaw ma si daara mu la yéegi naa ne décédé na décédé na yooyu moom instant moom xanaa ñu bàyyi police def seen enquête salaam tur Penda Kane ñu fekk la fii nii ci cité Bataar euh, ñu bëgg rek nga dell si ñu ci sécurité bi nga xam ne am na fii. ah fii boobu mu ngi noonu mais fii maa ngi fi bëgg a yàgg presque am naa fi 3 ans li ma fi 4 ans mais daal xaw na des xaw na des wax dëgg yàlla li fi xew nii moom lu bees la fi moom daan nañ fi dégg lu nekk mais lii moom lu bees la fi moom. xam naa ne daal moom xaw na des daal li ma la ko mën a waxee sécurité moom des na fi ndax fan yi moom da nga fiy dégg ay sàcc lu nekk luñ fi daanul dégg daal ñu ngi ko fiy dégg léegi moom. kon agression da fi faral di am. bariwul nag non ay mbiru sàcc daal laa xam ne moom amoon na fi mais fi mu nekk ni moom calmé wu na sa gars yi commencé fii moom xale yu góor fi gis te dëkkoo fi sax a taxawal di laaj foo dëkk ak yooyu waaye loolu daan na fi am xale góor nañ ko fi xamul la gisee ngay jaabante sax ñun a xam lan ngay def si biir koñ bi waaw nga chantier yi moo bari tamit mënoo gis nit rek mën na la wax damay liggéey fii loolu moo tax chantier yi ñoo fi bari te xam nga fii dafa xaw a àllewe li ñu manqué moom bari na fii moom amul dara du marché du dara lamp yi gis nga boobu ba léegi ñu ngi kaas dara amu fi oto mbali bi sax pour mu dugg fi man mi maa doon kaas pour mu dugg fi mais gis nga bu tey sax bu subaa du mu am ab jëye boo xam ne am na fi démb ci ginnaaw nii rek mooy ñaari waay dencante yi nga xam ne dañ leen fekk ci seen néeg euh, ñu gaañu loolu lan nga ci mën a wax ah, loolu moom lu ma la ci wax moom damay fen fii laa dëkk dëgg yàlla euh, ñun ñëpp ñoo ci yem dañoo yeewu rek yem ci fi ñu taxaw ni fi la dëkk dañoo yeewu rek yem ci man damaa yeewu di ñëw ci table bi am yu ma doon mottali yem ci mais bi ma gisee waa Avicenne bi ñu toog affaire bi xawoon na ma jaaxal trop mais bi ma duggee laajte ñun tamit ñoom ñëpp ñu ne kenn xamagul lan moo xew ci laa demaat sama kër ñëw bi ma ñëwee ñu xamal ma ne euh, diw moo gaañu ak jëkkëram ci biir fii affaire boobu nag xawoon nañu choqué nag wax dëgg yàlla ndax nit ku baax la. dëgg la Aïcha Thiam lay wuyoo yéen est-ce que amoon ngeen benn relation

dama ko gis mu dem entraînement wala mu liggéey wàcc amul problème ci kenn bu wàccee seen kër fi ñu luwee nii ku si nekk ak sa caabi su duggee tëj na wala doom ji bu génnee bu dugaatee tëj na ñu yéeg amul benn problème ku mu romb nuyu pare na si salañ salañ affaire yi mu nekkee woon daal bëgg na solu bëgg na lu baax ñun moom lañ xam ci moom wax dëgg yàlla nit ku baax la affaire bi nag moom démb bett nañu. ki nga xam ne mooy borom këram nag. ah non kooku moom xaw ma ko dëgg laa xam ne moom mooy borom këram dëgg la am ñenn ñuy wax ne rek euh, kër néeg bi nekkoon euh, dafa am lakk-lakk nga yaakaar ne du lakk-lakk boobu. ah non loolu moom xam nga rek moom boo xasee ba déggale ku nekk ak ngay wax nit ku ñuul moo mel noonu defe naa nettali sax ñiy fekkewu sax ñooy gën a mën a nettali mais ñun ñi nga xam ne ñu doon dëkk si koñ bi loolu moom ñun ñi tey dañ ko déglu rajo mais affaire bi jaaxal nañu lakk-lakk boobu ñu si dégg noonu ñun jaax ñun bi bi di génne la gëm ne sax si bàyyi na fi ñaar man kenn laa xamoon sax parce que moom ak sama doom bi ñoo bokk école bi ñu jàngee mooy xale bu jigéen bi xaw na dëgër waaye mais après keneen ki dama dégg ne fan yi la ko jëlee Kaolack indi ko ko utal fi dugg mais xale boobu sax gisuma ko ba tey xaw ma ko mais ñaar ñooñu laa dégg na daal ñoom la am d'accord léegi xale yi instant yi est que euh, am na fu ñu nekk wala a ah, waaw loolu nag dese na ma wóor man xale yi sax depuis booba léegi gisuma leen barki démb daal avant affaire bi di am daal laa bi mu jógee entraînement daal ànd ak doom ju jigéen ji laa gëj gis laa leen gëj gis ñoom wax dëgg yàlla xaw ma si ñoom dara. voilà mbokk téléspectateurs yi ñun ñoo ko déggandoo gis ngeen nag kàddu yi nga xam ne jib na fi rek mu nekk ci ay seede ci ñi nga xam ne ñoom ñoo génn àdduna ak insécurité bi nga xam ne rek dañ ko nemmeeku ci gox bi. voilà nii rek la demee saa su nekk ak lépp lu mën taxew rek ci terrain bi dinañ wàcc rek daal di leen ko farañ fàccal di leen jox dig daje rek beneen yoon.